waral suñu dajaloo bii tey mooy dañuy liggéey ci suñu mairie euh, doon sonn avant mairie ba jot ci suñu mairie gagné léegi nag euh, bi ñu gagné ah ñu ñëw di liggéey am ay samba boy yu taxaw fee ne daam njaay lu fi daam njaay indi ñu mbubboo ko ne ñoo ko fi indi te ñoom indi wuñu ko fi ñuy def suñu 11 mars jënd suñuy yére mu taxaw ci public ne ay maire ay yére yi ñaar moom du ko jënd danaa wax nag ñu tontu la léegi nag mu del si waat ne day tontuwaat day ñëw si buntu mairie bi fii lay defee marsam euh, filmer li yàqal ñu ne day toj lobby bee day dugg ci mairie bi yàqal ñu ko te ñun tamit loolu la ñuy lànk ba tëdd ca naaj wa ne fii nag ñoo ko moom ndax ñoo xeex ba gañe suñu mairie waaw léegi nag euh, li waral tool loolooy li waral tool yi ñoom nag nee dañuy jógee koo fee ñëw fii yàqal ñu ñun tamit ñu taxaw fii ne su fii ñu euh, ñoo ko moom kenn du fi ñëw du ñu yàqal ku jaar suñ kaw nag doo ñu yàqal lu bi benn ku ko bëgg a toj dangay toj dañuy yóbbu dañuy rey doo ko yóbbu doo ko toj ah xanaa soxor rek saboté ak soxor ndax nee na Dame Ndiaye askan wi faluñu ko te Dame Ndiaye bu ko askan wi fal toon mbooloo mu toll nii du fi ñëw ndax lii dong du ñuy conseil conseil ñeent fukki conseil ak juróom lii ëpp na ñeent fukki nit juróom te conseil yi ñooy fal ndax sunu gaynde ko mag moo fi ne woon ko ba jot ci maire bi am leneen dem ca di ko indi rakam teg ñu may mu doy ko mu dénk ko ñu woteel ko mu gañe ko ñëw toog kon ku ko bëgg a yàqal dañ ñu jaar suñ kaw jàll doo ko yàqal ku jaar suñ kaw jàll doo ko yàqal Dame Ndiaye Dame Ndiaye lim fi réalisé kenn nu mu toll lamp yi ci dëkk bi la lamp yi waral coow li ak wax mi lampadeer yi waral coow li ak wax yi daam njaay ko fi indi bëggoon nañ ko fukki at juróom-ñett ci ren bëggoon nañ ko mënuñu ko am daam njaay ñu ko indi ndox foo génn ci dëkk bi ndox ngay wala ngaan daam njaay projet yi ne génnal nañ ko ñoo di si fii eh, projet yi jigéen ñaa ngi liggéey macha allah di gis seen bopp barki dem boo njaay formation yi barki dem boo njaay waa crédit mutuel ñoo nañ fi liñ fi leble bari na waaye SAIC ñoo ngi fi waa FERA ñoo ngi fi lépp Dame Ndiaye ci moo ngi ciy kon Dame Ndiaye car macha allah jigéen koy taxawaalu gisatoo ko dañoo sonnoon bu yàgg ci dëkk bi ñu ko di ko xeex juróom-ñaari at benn Samba Boy ñëw ne day nangu ñu xeex ak moom biir ak bitti ba gañe luñ mu dem tëdd fii bëgg fi dara. day jaxase suñu dëkk président Macky Sall moo ko fi moo ko nommé waaye fii bugg fi dara day jaxase suñu dëkk leer na ko ne élection yaa ngi jub keroog dañ watee municipal yeeg léegi jaaru fi demu fi xew demu fi ngente demu fi dëkk jaarul fi dëkk bi mu daal di am mu ñëw samedi le cinq mars bële le 4 mars samedi bële la dégg journée alxuraan bi maam mu ñëw ci dëkk bi xam na ne Macky mi ngi waaj a ñëw Fatick waaye depuis biñ ko gañee jaaraatul ci dëkk bi mu daal di ñëw nag bu ga jaxasee suñu dëkk wan nañu ko Macky la koy wan waaye dëkk bi ñooy boroom te population commune Colobane ñëpp ci ginnaaw Dame Ndiaye lañ nekk barki démb suñ population bu saas bee wane na ko tey jii bu ne woon suba bu kenn añ Colobane suba duñ marché ba kenn du ca dugg duñ togg añ buñ ñu fontoo fii ñooy boroom defu fi dara nag defu fi dara man li may wax ci Dame Ndiaye monsieur le maire laa ko wax nouveau maire dama ne su ma yeboo dañu nouveau maire moo tax comme li ma faral di wax toutes les femmes sont devenues des à cause de Dame Ndiaye li tax du doon ay jigéen bu jigéen bu dee rootee tut jigéen bu dee wala tut jigéen bu dee fiqa tut jigéen bu dee bojja tut jigéen bu dee bu doomam jànge ba wàcc ñëw toog ci wetam jigéen bu dee bu bépp sa tam gis xaalis bu muy jàllar bee ko olbatee kon moo tax ma ne toutes les femmes sont devenues des à cause de Dame Ndiaye ma bëgg nag ma bëgg nag nañ ko defee ñun def lañ gën a mën ci ay wax xuloo na xeexuñu waaye nag li nga xamante ne suñu àqeef ak suñu dañ ciy taxaw ba mat sëkk ba ñu juñ ci lenn jotantewuñoo kenn defantewuñoo kenn dara na waa gis nga daam balaa kenn jàll ci moom dangaa jaar ci ñun ba jàll doog a dem ci moom ndax nag moo ñu jëlee ci lëndëm gi moo ñu jëlee ci coono bi moo ñu ci leer gi nag ku la may ay bët ku ne nag wan fi ngay xool te nag daam gis buñ bu ñu àndee moom yàggagun na waaye macha allah yal nañu yàlla la fa cat logement yooyu ñu wax ne président Macky Sall dénk na ko ko mu yore ko di ci def ak dindi gisuma kenn kum ci defal lenn gisuma ko ci kolobaan dëkk kolobaan loolu laa wax man gisuma ko loolu nag a war a coow li te wax nañ ko démb wax nañ ko tey te boo ëllëgee danañ ko wax. incha man ci li wax ñii wax nañ wax ci genn wàll gi ba pare man nag ci président de la république laay wax Macky Sall. bi ñuy laata campagne El Hadj Amath Diop waxoon na ko ne amul droit juum waaye ba tey rectifié nañ ba lépp jeex na jàll na waaye ba tey ñoo ngi koy delloowaat kaddu gi amul droit juum amul droit juum benn yoon ndax ñun El Hadj Amath moo fi nekkoon day bay waa dëkk bi ba mu set wecc ak bi mm-hmm. léegi daam jaay yow gën koo dabbali mm-hmm. dimbale ñu soqali jigéen ñi ñu topp moom lii tax ñu topp moom nag ñoo wane kon ko wane moo tax ñu topp moom Dame Ndiaye moo nekk ngir yàlla Dame Ndiaye moo nekk fii yàlla moo ko fi teg ndax bu ngeen déggee ne musu leen dégg gumba yuy balot guddi am na fii ci gumba yi guddi la ñuy balot ndax leeraay xam nga ba du woon leeraay gumba yi duñ balot loolu yëpp weer Dame Ndiaye moo fi def kon nag ñun jigéen ñi maire ñoo ngi ci gannaaw maire Dame Ndiaye tey ba ëllëg ñoo ngi ci gannaaw ñoom mobilisation bu sax sàpp lañ def ñoo ngi ci gannaawam te duñ ci daw dara. li waral lii tey. tey dama ne dama ciy wax ndax yàgg nañu dase ci lu mel nii te ma wax tey nag dañ ma ne naa wax ci turu kilifa yi fi woon tey suba ba léegi kilifa yi fi lañ nekkoon ñu ne ma nag comme kay gudd ne maa ngi ñu ngi dem a ah, bàyyi nañ la suñu kàddu yàlla dafa def lii diine ji tey man maa ko yore cosaan ak aada bi maa ko yore ma nekk tamit di kilifa ci xale yi ñu jox ma kàddu ne ma naa wax lii dafa neexut kenn ñun yàgg nañ ne ci dëkk bi di liggéeyal dëkk bi xeexuñu xuloowuñu xastewuñu saagowuñu kenn ñi nga ànd suñu leader Amath Diop ba yàlla def tey ñu jël mairie bi biñ jëlee mairie bi situation yu métti lañ ko jëlee parce ñi ngi doon dooleel keneen koo xam ne nii dañoo foogoon ne moo moom doole ji moo askan wi ñu ñëw ñun wane doole ji wane ne ñun ñoo askan wi askan wi ànd ak ñun fal ñu ban ñu falee ba léegi nag amuñ jàmm ñu ñuy saaga ci réseau yi ñu ñuy saaga ci koñ yi ñu ngi ñuy saaga ci mbedd yi ñu muñ ñu muñ tey nag fale ñu wax trop c'est trop tey lii mënutoon a ñàkk di di la topp ngay muñ di la saaga ngay muñ ba fekk la sa biir kër nag bëgg laa ñand da nga moo waral lii tey ñun wowuñ kenn ci xeex wowuñ kenn ci saaga wowuñ kenn ci wax ñaaw bi biñ jëlee commune bi ak léegi yàggut yàggul mais imagine ñi ko yoroon douze ans ñu ngi fi ak ñoom ñun ñoo doon liggéey di liggéeyal askan wi bu dee bu dee ndox ñun ñoo ko doon joxe bu dee machine ñun ñoo ko doon joxe ñooy dem ci xew ñooy dem ci lu fi xew te booba yoruñu dara yàlla def ñu muñ di liggéey di liggéey ba ak fii tey jàmm moo gën lu ne ñi ngi woote jàmm biir Colobane ñi ngi woote jàmm ñu liggéey suñu Colobane jëm kanam mais lii rafetut rafetut kon nag maa ngi ñaan képp ku fi ñëwoon gis na lii naqari na la ñi ngi jéggulu xam ne ci ñun de ñun defuñ ko di gërëm ñëpp di sant ñëpp. waaw wax ji nag li ko waral euh, ñu ngi sant yàlla bu baax euh, la maire Dame Ndiaye il est empêché moom moo ñu yebaloon pour mu wax au nom de la mairie euh, li tax ñuy wax fii nag c'est la première fois depuis Colobane et communauté rurale depuis 1978 depuis que Colobane est commune euh, 2014 ba léegi c'est la première fois ñu gagné nit ci ay élection avec un score de cent quarante trois nga ñëw ne da ngay foqar bi c'est la première fois c'est inadmissible lii moom nit ñi ngi koy doog gis ki ko waral nag du kenn muy monsieur Ousmane Wade moom moo nekk administrateur du fonds de l'habitat sociale dafa di demoon élection nax président Macky Sall li ko naxee mooy dafa dem ne ko mbooloo Colobane man lañ ànd ak Macky Sall jox ko président Macky Sall jox ko mandataire bi ñun APR lañ ñu dem liste parallèle bi ñu demee liste parallèle ñu gañe ko cinq cent quarante trois de différence biñ ko gañee nag depuis vingt trois janvier deux mille vingt deux ba léegi mënta digérer défaite boobu ndax dañ ko gañe mu tëdd ndakaaru at ñëwut Colobane ñëwut dëkk ñëwut ay jàng ñëwut ngénte ñëwut ab tour de famille mu xaar nag ba dégg ñu ne président Macky Sall war naa ñëw Fatick ci fan yii di ñëw comme niñ ko xamee manipulateur comme ñu ko xamee lobbyiste mu ñëwaat ne day ñëw dajale ay gone Colobane ne nag day ñëw attaquer la mairie ñun nag wowuñ kenn mais militants yi ñoom ñoo ñëwal seen bopp parce que biñ ko déggee ci réseau sociaux yi ñoom ñoo ñëw parce que dañ ne ñun maire bi ñu faloon moom moo ñu doy ba léegi seen sympathie boobu nag ñun mënuñ leen koo tere loolu moo waral lii tey moo tax tey mbooloo mépp génn ñëw taxaw ci mairie bi xam ne le maire Dame Ndiaye moom moo fi nekk ba léegi gestul lampadaire solaire mi ngi nii dëkk bi set na wecc éducation tey salle classe yi def def nañ ci ay salle de classe andi nañ ci semi élèves def nañ fi journée de l'excellence euh, def nañ fi fourniture fourniture gratuite aux élèves def nañ fi def nañ fi def nañ fi li def ci éducation mënuñ koo wax liñ ci def ci santé mënuñ koo wax recruter nañ fi tey une vingt vingtaine d'agents yoo xam ne agent de santé lañ euh, poste de santé yi fi nekk yëpp muy quatre postes de santé am nañ partenaire boo xam ne valeur plus de valeur valeur vingt cinq millions indi nañ ko fi dugal ko fi ci ci santé boo demee ci ndox dëkk bépp am nañ ndox dëkk yëpp am nañ ndox boo demee ci énergie aussi gis nga euh, avec le euh, avec le programme de l'État muy programme bi nga xam ne nii mooy cent mille lampadaires yi suñu maire moo démarché bañ am deux cent lampadaires dégg naa ñoom ñi na sax ñi naan ay cinq mille ay ay cinq cent lampadaires mais dañoo xamul rek deux cent lampadaires la ñu am avec euh, ANER ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko installé ci mois de décembre bi kon tey bu ñuy lim réalisation mairie Colobane ci at mi duñ ci jóg looloo tax nag population bi cofeel bi ñu amoon la 23 janvier tey la cofeel boobu gën a am. dëgg la. waaw li ma ci yokku rek mooy ñu xam ne le maire Dame Ndiaye maintenant c'est une donc c'est une vedette au niveau du département de Gossas parce que bërki démb dimanche 20 yéen journalistes yi yéen a ngi woon Gossas garab bi dimanche 19 keroog yéen a ngi woon Gossas. keroog bi nga xam ne nii la jeunesse Benno Bokk Yaakaar dañuy investir le président Macky Sall suñu frère euh, Moussa Sow nga xam ne moom moo yore COJER ma nga fa woon aussi il était témoin des faits ci leen xam ne keroog mobilisation bi la maire Dame Ndiaye def kenn benn maire defu ko ci département Gossas mobilisation boobu nag moom moo leen métti comment yow nga yore décret président ñuy meeting département nga di ko boycotté waaw loolu man mënuma ko comprendre kon nag kooku tey bu ne dafa bëgg le président Macky sàll ñun dañ ne bëggu ko day wax mu ngi ci li mu nekkoon mu ngi ci lobbyiste mi ngi ci manipulation bi mu nekkoon ba léegi kon nag ñun fii ci commune Colobane nous sommes plus que déterminés à accompagner la président Macky Sall pour toujours alors cette situation que nous tous nous avons constatée elle est alarmante elle est historique elle est sans précédent Jamais dans l'histoire de la collectivité locale qu'est Colobane, on a assisté à un tel scénario. Et tout ça est du ressort d'un mauvais perdant. En l'occurrence, M. Ousmane Wadi, administrateur du Fonds de l'habitat social. Il est allé manipuler avant les locales. Il est allé faire des lobbies avant les locales. Il a affronté un maire euh, aimé par la population qu'on appelle le maire avant l'heure parce qu'il a travaillé pendant ans avant d'obtenir la mairie, monsieur Ahmad Diop. Alors, quand il a fait son, ses lobbies, le parti lui a confié euh, euh, la carte mandataire. Il est venu avec des centaines de millions, mais la population lui a tourné le dos. Ils lui ont dit, devant les réalisations de Ahmad Diop, on ne franchirait pas. Donc la population a voté à l'écrasante majorité pour monsieur Ahmad Diop, pour notre liste, qui était à l'époque une liste parallèle. je le rappelle. Mais puisque nous étions dans le même parti, on voulait prouver tout seulement au président que ce gars-là est un lobbyiste, est un manipulateur. Depuis combien d'années il gère le fonds de l'habitat social Auparavant, il a occupé beaucoup de postes, mais il n'a jamais amené ici euh, le, le moindre, euh, comment parcelle à Colaba. Comme le maire l'a dit la dernière fois, en, en jargon, on dit une euh, pantrée. Il n'a rien amené ici. Alors, maintenant, aujourd'hui, il instrumentalise pour leur dire allez attaquer la mairie, pour donner une, une mauvaise image du maire, pour dire que le maire n'est pas populaire, n'est pas légitime, mais aujourd'hui, vous, avez constaté par vous-même. Les populations ayant entendu euh, rumeurs se sont levées comme un seul homme. Et on dit on va défendre la mairie, qui est une institution, qui est un symbole. De, et, aujourd'hui, nous sommes mercredi. La mairie travaille, la mairie est une administration. La mairie est etc., des, et des ce qui s'est passé Ils ont fini par fuir. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est ça qui s'est passé à Colaba. Le maire d'Amdiaye est plus que jamais légitime. Il dispose d'une légitimité populaire, d'une légitimité historique, d'une légitimité, euh, comment dirais au niveau du conseil municipal. Alors, M. Damia, je rappelle, c'est un ingénieur hydraulicien euh, euh en eau et assainissement au ministère de l'eau et de l'assainissement. c'est un comment dire il gère des projets donc il gère des projets donc à de ce moment euh, il n'a jamais euh, comment dire fait que travailler pour Colobane et il a ciblé quatre secteurs clés l'eau euh, la santé l'éducation et euh, comment dire l'électricité les lampadaires monsieur le maire Bafal en a parlé l'eau aujourd'hui est un accès universel à Colobane c'est une réalité palpable euh, la santé on a recruté plus de 20 a recruté plus agents pour la santé les écoles, on est en train euh, d'éradiquer ce qu'on appelle les abris provisoires. Donc, je ne saurais, euh, comment ici tout ce que Maire Damda a fait. Je rappelle que Maire Damda a été élu en tant que maire de Colaban le 11 juin passé. Il n'a même pas encore fait un an. Donc, c'est pourquoi les populations ont dit qu'elles vont le défendre. Donc, il n'y a, pas plus légitime que Maire Damda. Aujourd'hui, donc, vous avez vu la, la populaire derrière moi. Il y a d'autres